l'intérieur dafa génne arrêté euh, ci affaire list yi affaire liste yi euh, ñun gaa sax sunu liste ñun jàll na amul problème liste grande coalition wàllu wante dañu gis ni listu yeewi askan wi dañu ko dàqal liste proportionnelle am te foofu dafa am ay ay manquement yu ci am euh, gis ni dañu itam listu Benno Bokk Yaakaar rejeté wuñ ko rejeté dañu rejeté suppléant yi te titulaire bi ñu jàpp ni liste Benno Bokk Yaakaar déjà problème parenage bi ñu amoon rek waroon na tax tey jii ñu bokk ci élection yi wala ñu tontu ñu ci donc loolu defaat nañ ci recours defaat nañ tam beneen recours bu nga xam ne si ñi ngi ko def ci mbir moomu parce que ñun dañu jàpp ni euh, scrutin dafa am deux scrutins scrutin proportionnel ak scrutin majoritaire scrutin bu ci nekk dafa am ñaari liste dafa am liste des suppléants ak liste des titulaires boo doon déposé tey jii say liste boo indee liste titulaire te indiwoo suppléant dañ la naan baaxul est-ce que lii ñu def tey dafa war a wane ni léegi kuy demati élection da ngaa bu la neexee rek nga indi benn liste titulaire wala nga indi rek benn liste suppléant ba benn list ñu ni ñu bëgg koo xaaj ñaar ni lii la ñuy recevable lii moo recevable lii recevable nous disons donc que cas Yewwi ak kaa benn Bokk Yaakaar bokkul fii dafa am des problème ci parité loolu dañ ko war a dàq te loolu boo amee list bi baaxatul moo tax ñu déposé ci recours bu dee Yewwi dafa am lu ci manqué loolu normalement ay remplacement rek la war a doon donc bu kenn jàpp ni ñaari cas yi dañoo bokk bokkuñu loolu moo tax ñu def ci ay recours tey jii ñu ñëw indi recours yi teg ko déposé ko euh, ci conseil constitutionnel. ñun jàpp ñu ni conseil dana rejeté ay ay loolu ndax lii affaire droit la. te xam nañ ni conseil constitutionnel dafay nekk pour dire le droit donc yaakaar nañu ni ñun lii ñu déposé danañ ci am ndam incha allah.